Président Mbagnick Diop ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di nuyu bu baax euh, Fatou di nuyu ci sa tur waa rédaction bi yëpp. Mm-hmm. yow yaay njiital mouvement des entreprises euh, du Sénégal alors conseil présidentiel bi ñu jagleel relance économique bu Sénégal tey lañu ñu koy amal économie boobu nag mbas mi daal di koy laal bu baax a baax ci sa xalaat naka la ñu war a doxalee boobu les plans ngir mën a yëkkati koom-koom bu Sénégal. bu am solo parce que ñun suñu bopp euh, dañ ko doon ñaan état bi aussi doon xaar ba moment bi jot ni mën koo def donc tey la euh, képp koo xam ne ne acteur nga yaa ngi yëngut ci mbiru koom-koom ak suñu partenaires yi ñuy jàppale ci développement ak gouvernement bi yëpp dañuy daje pour xool nak la ñuy mën a relancer économie bi parce que euh, juróomi at juróom benn at yi passé yëpp amoon nañu peut-être chance économie bi ñu doon am sunu taux de croissance mu doon nekk ay six six virgule six pour cent mais pandémie bi kenn xaaru ko ci àddina mu ñëw jaxase yëpp donc calcul yëpp a jaxase projet yëpp jaxaso ba nga xam ne ne mel ne il faut ñu toog xalaat nag la ñu mën a relancer économie loolu moo waral tey euh, donc euh, daje bi ñu si xaar lu bari bari bari parce que ñun suñu wàllu bopp secteur privé def nañu benn document boo xam ne ne am na fukk ak juróom benn proposition yoo xam ne lañ ko war a tegal état bi pour xool nag la mën a sukkaloo koom-koom bi et puis surtout secteur yoo xam ne ne secteur yoo xam ne dañoo affecté lu métti métti métti métti métti donc euh, tey daal daje bi ni la nekk daje bu am solo buñ si génnee daal dañu gën a mën am lu ñuy wax euh, euh, visibilité mm-hmm. pour xam naka la ñuy continuer donc ak Covid bi naka la koom-koom bi ak économie bi di mhm. Mhm. Mhm. ci lan la war a sukkandiku justement plan bi euh, ngir euh, mën a dimbale koom-koomu réew mi mu jugaat ndax sànq yaa ngi koy fàttali euh, ñi ngi woon ci plus de 6 pour cent ci ay projection mais fi mu nekk 0,7 pour cent moom la FMI ak banque mondiale yëpp prévoir ci wàllu croissance ci Sénégal mu wane nekkoon économie bi mbas mi laal na ko bu baax léegi si lan la ñu war a sukkandiku justement pour jugaat mooy wàññi suñu Euh, vis-à-vis de l'extérieur dañuy dañuy compter trop ci bitim réew donc euh, ñu war a tamit def euh, ba suñu industrialisation mën a yàgg ba pare mën a inclusive il faut que ñu am industrie bu am doole boo xam ne ne ay capitaine d'industrie sénégalais ñoo ko ngànk kooku dafa am solo aussi ñu accélérer suñu souveraineté alimentaire ak sanitaire ak pharmaceutique mm. parce que mag bi war nañu ne li ñuy dépense ci extérieur muy lekk bi muy affaireu euh, santé muy affaire même pharmacie dafa dafa dafa bari trop ba nga xam ne ne dafa mel ni amuñu suñu autonomie donc loolu aussi lu ñu war a xoolaat la ba nga xam ne ni dañuy am suñu souveraineté alimentaire sanitaire ak pharmaceutique mm-hmm. beneen aussi mooy renforcer protection sociale pour une meilleure résilience dafa am dafa am solo loolu dafa am importance parce que tey euh, euh, euh, secteur privé dafa war a gën a am capacité dañu war a gën a dooleel capacité secteur privé bi mu mën di intervenir aussi dans l' ñu bañ a toog rek état bi def yëpp ñëw tegal ñu ko ñun ñu ànd si ak état bi il faut que ñu gën a dooleel secteur privé. président woo na leen justement keroog ngir secteur privé bi gën a dugal loxoom ci wàllu mbay mi bi mu demee Kaffrine loolu dafay fekk si li nga wax ni war nañu sukkandiku ngir am autonomie alimentaire. waaw kooku bon bu koy président di wax. daf da da nga ci kontaan daf fekkoon déjà ñu nekk si donc mu nekk loo xam ne ne lu am solo la parce que euh, on ne demande que ça mais xam nga affaire suuf bi dafa nekk aussi benn problème boo xam ne il faut que état bi euh, tamit rek la ko mm-hmm. xam nga boo nekkee secteur privé nekk homme d'affaires nga dem investir na bëgg investir fen wala nga investir na waa dëkk ba jóg ne la du nii ak yooyu loolu tamit problème la mm-hmm. mais je crois dinañ toogaat gën a waxtaan pour mën a gën a motiver secteur privé pour ñoom ñu mun ñun ñu gën a mën a dem investir ci agriculture bi ci agro business bi parce que loolu aussi dafay développer dëkk bi c'est important mm-hmm. doomu réew mi seen bopp di exploiter aujourd'hui euh, agriculture mais booy xool yenn usines nekk ci dëkk yu sori yëpp ay étranger ñoo fa dem taxawal di mm-hmm. exploiter di exporter du jàll bi te day rek pour dëkk bi duñ ko yëg di dëkk bi waaw dëkk bi sax duñ ko yëg mm-hmm. donc mais xam nga doomu dëkk bi bu demee bëgg ko def aussi Euh, waa dëkk bi tamit jóg ne leen non lii du fi am wala nii lay amee loolu aussi dafay décourager mhm. euh, secteur privé bi ak investisseurs nationaux yi mais je crois que président bi mu demee si biir àll bi gis na potentiel bi fa nekk te xam na ne secteur privé war na si mun dugal loxoom pour ku nekk gis sa bopp mhm. villageois yi gis sa bopp agriculteurs gis sa bopp producteurs gis seen bopp secteur privé aussi acteurs économiques gis seen bopp kooku moom day day day day day fexe rek ba koom-koomu réew mi développé alors ñu ñëw ci euh, plan de relance bi euh, président de la république euh, ku nekk xam na yaakaar justement bi mu teg ci secteur privé bi ak itam li ngeen di dugal ci économie bi muy seen participation ñu yaakaar ne tamit place bu toll noonu le secteur privé bi nara am ci plan de relance bi yéen lan ngeen di xaar comme ay défi mbir yoo xam ne war ngeen ko ci def ngir dimbale koom-koom bi mu jug. xool résultat macroéconomique ak euh, sectoriel yoo xam ne ne li ñuy réaliser entre deux mille dix neuf ak ak lu ñu wala réaliser waat loolu lu am solo la aussi xool yan option la état bi di retenir pour impulser mooy pour joxaat euh, doole euh, dynamique de relance bi ba pare mu partager ko ba pare waxtaan si aussi ak ñun secteur privé et aussi def ay recommandations yoo xam ne moom mooy permettre donc euh, économie bi am benn trajectoire d'émergence parce que loo gis rek il faut que mu am benn lu ñuy wax fil conducteur il faut mu am yoon fu mu war a jaare boo xam ne ñëpp dañ ciy déggoo mhm. xam ne ñëpp dañ ciy dugal seen xam ak seen mën-mën euh, moom lay wax euh, moom laa tudde noonu trajectoire d'émergence mhm. ñu xam lañ ko war a adapté et puis xool aussi réforme yoo xam ne état bi moom la nar a proposé pour ñu adopté ko sur PAP 2A bi mooy ajuster et accélérer. Mm. comme ça ñu mën ko valider e à partir de donc du conseil présidentiel sur la relance économique ñu mën a démarrer waat ak beneen dynamique bu bees pour sukkali koom-koom bi et puis ñu gaawantu jotaat suñu taux de croissance boo xam ne. at yu baas yi moom la ñu yore mooy six pour six virgule six pour cent bi ba pare population aussi di seen bopp parce que tey boo xoolee ndóol bi dafa bari trop mhm. dafa bari ñu doon euh, euh, aujourd'hui considéré comme ay ay cadre wala ay euh, citoyens yoo xam ne catégorie classe moyenne lañ seen bopp si ndóol bi lañ nekk tey dañu ndóol donc tamit ñu nekk aussi dëkk bu ndóol c'est-à-dire Afrique booy xool Sénégal aussi c'est un pays en de développement ñu ko wër yëpp aussi loolu la malgré que lu ñuy def lu ñu mën mais euh, il faut que ñu gën a góorgóorlu gën a impliqué ñëpp xale yi am lijaase am xëy ñi am xëy ñu fexe ba sauvegarder seen xëy parce que tey Covid bi wane na na plus de quarante pour cent ci entreprise surtout PME PMI dañu taxaw parce que amatuñu activité parce que li tax amatuñu contrat amatuñu marché amatuñu dara et puis dem nag leb banque pour di fay ay salaire mu ko def benn weer ñaar ñetti weer mais mënoon du continuer mm-hmm. loolu moo tax ñu bari arrêté tëj di ba situation bi changé pour ñu continuer ba seen activité loolu nag dafa metti metti na ci borom entreprise bi metti na aussi ci donc euh, employé yi nga xam ne dañu am ay responsabilité ay borom kër mhm. yoola ay njaboot ak yooyu donc loolu yëpp dañ koy boole mun ci waxtaan xool daal naka la ñuy sukkaloo koom-koom yi ba nga xam ne ne ku nekk dañ si mën gis sa bopp justement noo gisee ni état gunge secteur privé bi euh, ci jamono mbas bi ñu nekk waaw yàlla dogal na man may représenté donc euh, patronat bi secteur privé bi ci euh, comité Covid 19 bi. Mm. état bi def fa naa ne sama sama xalaat bu gàtt lu mu man yëpp def na ko xam nga dajale mille milliards si ci ay semaines yu néew pour jàppale. lépp lu jëm si euh, alimentation mooy ceeb bi mm. diwlin bi saabu yeeg yooyu ak côté sanitaire bi relever plateau yi fexe ba li manqué woon ñu na ko euh, euh, donc euh, ak surtout jàppale secteur privé bi loolu yëpp ay effort yu état bi def la si ñun dem nañ si biir àll bi dem si région yi si département si commune yi gis lu mu sukkanu ko lu mu soulager yenn population yi hmm. mais loolu yëpp du day parce que état bi rek état providentiel loolu moom dañ ko dafa dañ ko dépassé léegi état bi mu def yëpp il faut ku nekk jàpp si mais lu mu mënoon def na ko mais dañ la wax ne toujours doyul parce que tamit da ngay gis toujours loolu baa ngi yokk benn mm. côté am na ñoo xam ne ñu ngi si génn am na ñoo xam ne ñu si ñun secteur privé il est vrai que état bi jàppale nañu bu baax def na lu mat cinq cent quelques milliards pour ñun secteur privé wante euh, comme li mu la ko waxee si nasaraan euh, ñëpp ñu ngi ci dugal di béy seen waar banques yi daal laa gis ne lu ñu waroon def defuñu ko ñu ngi si biir dispositif bi même booy xool ñaar fukki banque ak juróom booy xool lu mat fukki banque rek ñooy ñoom opérationnel mhm. ci dispositif bi état bi taxaw pour accompagner entreprise yi pour mu leen jàppale mu leen abal xaalis ñu mën a liggéey ak si taux trois virgule cinq pour cent mais loolu aussi banque yi dañuy laajte ay garantie yoo xam ne ne chef d' bu ndaw bu yore PME wala TPE du ko mën a fournir ba nga xam ne ne kooku day mujjee abandonné ba nga xam ne ne il préfère toog tëj xaar ba jamono changé mu mën a continuer ay activité am mm-hmm. constaté euh, comme acteur euh, au niveau force Covid 19. ñu jeexal ak euh, li soxal autoroute à péage bi yow ci turu patronat bu Sénégal également euh, yëkkati woon nga kàddu di wax ni na état renégocier waat euh, contrat bi ñeel autoroute à péage boobu jël surtout vingt yi nga xam ni moom la am ci capital bi loolu ñu def ko ñu njort ne mbégte la jur ci yow gannaaw càkkuteef gi nga yëkkati woon. waaw am naa si comme lu ma ko waxee sànq satisfaction mbégte man à titre ak secteur privé aussi. parce que tey état bi depuis ñun bu ñu jëlee combat bi booy xool man la le 31 janvier a si commencé wax joxe si ay interview def ay émission télé ak yëpp euh, wax ak état bi wax ak président euh, wax ak euh, nguur bi ne leen du yoon tey Eiffage di exploité autoroute bi sa boobu léegi benn fistine état bi jotu ko benn fistine demul si population bi état bi nee ma ne ñu dinañ woowaay Eiffage toogaat ak ñoom pour discuter contrat bi boobu ba léegi nag février ba léegi état baa ngi wax ak ñoom dañu rendre compte aussi ñu aussi ñu leen ciy jàppale ba tey yàlla def que état bi mën na dugg léegi ci capital bi à hauteur de vingt cinq pour cent solowul onze milliards bokk ci tour de table bi dugg ci société bi ñuy wax SECA SECA mooy ex Sénac euh, mais Sénac filialu Eiffage la donc loolu mu nekk métier ba pare négociation yi jeexul parce que bu ñu toppee euh, lu bëgg bëgg Eiffage mooy à partir de deux mille vingt huit la état bi di mën a commencer di jot xaalis donc état baa ngi comment continuer négocier ba nga xam ne bëgg nañu dee déwén rek ñu commencer di jot seen dividende parce que autorité yi xaalis bu bari bu weex yàqal lay dugal contrat bi ñu signé woon kenn mënul gis loolu xam ne dañu naroon toog ba deux mille trente cinq ou deux mille ñaata pour état Sénégal soog a gis couleuru xaalis bi donc hmm. ñun nekk na satisfaction ñuy féliciter état bi aussi dégg nañu et puis liggéey nañu comme ni ma koy waxee en bonne intelligence parce que bu ñu attiré seen attention ñoom tamit tooguñu depuis boobu ñu ngi nekk ak euh, tubaab yi Eiffage yi di ñoom ba yàlla def solution bi ñëw tey état bi ak secteur privé bi parce que secteur privé tamit dina si dugg si vingt cinq pour cent boobu ba nga xam ne ne dañ mën a toog a ñoom surtout de table bokk daal. alors euh, loi bi nga xam ne tamit euh, moo war a nag obligé euh, investisseurs yi ñu daal di lëkkaloo tamit ak secteur privé national bi ñu ngi koy xaar fan la boobu loi tolloo. waaw loi boobu PPP la donc xam nga voté woon nañ ko mais application bi moo desoon xam nga booy xool donc dëkk yu bari mënoo fa dem nekk sénégalais. am fa ay possibilité marché euh, boo xoolee Chine mënoo fa dem ne da ngay def appel d'offre di fa gagné Maroc bi ñu gën a jege sax un kilomètre de route mënoo ko fa tabax hmm. Mauritanie bi sax mënoo ko bu fekkee ne associé woo ak euh, nationaux yi donc loolu aussi ñu gën ci ñaax président yàlla def bi ñu amee euh, tugal fan yi passé dafagul ñetti semaine ñu gën ko wax ne ko daal vraiment loolu moom il faut mu taxaw si ak gouvernement bi ba nga xam ne ne sociétés yu mag yi yii ñëw di gagné marché yu rëy yi projet yu rëy yi il faut que ñoom ñu mën a liggéey ak société nationale yi parce que ñoom lu ñuy def mooy dañuy ñëw après soit ñu sous-traité soit léegi ñoom dañuy créer yeneen société ci suuf def sous-traitance ak société yooyu hmm. ñoo xam ne ces euh, nationaux yi duñ ci bokk président déggal ñu nag boobu léegi aussi ñu ngi liggéey ba nga xam ne ne léegi mu effectif xam ne multinational bu fi mënti ñëw société bu mag bu fi mu ñëw fi réaliser dara que associé wu ci biir tour de table bi. Hmm. le secteur privé national. loolu day permettre koom-koom euh, euh, bi gën a développé ñu gagné ay euh, ay ay ay marché ñu mën a xale yi mën a am xëy. ménage yi aussi seen panier li ñuy wax panier de la ménagère. Hmm. mën ci seen bopp si yooyu yëpp. Hmm. parce que dafa am solo. mais léegi xam nga tendance bi mooy entreprise yu yooyu. Mm-hmm. da ngay dañuy dégg na Sénégal am na projet autoroute am na projet pont am na projet lii ñoom ñu ñëw ak seen koppar. Mm-hmm. Euh, trois cent milliards quatre cent milliards teg ko ne ah ñun mën nañ la koo defaral ñun am nañu financement bi. xam nga kooku tamit dafay jafey état bi mën la noo delluwaatal parce que man il faut que sama privé national si mm-hmm. privé bi tamit. ku ñuy waxal yàlla peut-être ñu doole bu mel noonu. mais quand même mën ak ñoom. en terme de consortium ñu ñu boole bu ñu fekkee ne bâtiment la mhm. ñu jël fukki entreprise yoo xam ne si bâtiment la ñuy yëngatu mhm. mën a bokk mën a faire face loolu daal ñu ngi si je crois que dans sous peu de temps euh, yàlla dina def euh, mu sotti comme ça entreprise nationale yi mën a di bokk ak euh, multinationales yi ñëw pour réaliser les grands projets et puis euh, les grands programmes de l'État du Sénégal. Mhm. jërëjëf président Mbagnick Diop amoon nañu mbégte lool dalal ci matinalu tey bi fàttali yow yaay euh, président mouvement des entreprises du Sénégal ñu ngi lay gërëm bu baax ndax xam nañ ne xat nga lool mais euh, may nga ñu waxtu bi ngir waxtaan ak ñun ci wàllu koom-koom surtout. waaw ngi lay sant Fatou yow yaay directrice de l'information rajo bi maa ngi lay sant di la féliciter di wax tamit sama sant ak sama. yóbbante euh, Elisabeth Diatta rédactrice en chef ak Jacques Matar Gomis si seen concept euh, euh, l'invité de la matinale parce que nekk na loo xam ne ne ñëpp a déglu ñëpp a koy suivre aussi si rewmi point com ak si plateforme digitale yi yëpp àdduna bi yëpp koy suivre mm-hmm. donc mu leen si félicité di leen encouragé di leen yàlla na a jàppale seen liggéey bi mm-hmm. ñu lay gërëm yow itam ak direction bi yëpp ci jàppale gi jërëjëf président ñu yendoo jàmm gi jërëjëf président ñu yendoo jàmm